duñu doyal ci image yooyu hier également on a été encore une fois sacré euh, champion d'Afrique ci suñu euh, CAN U20 boobu euh, ba tax nañu dalal suñu invité Madi Touré euh, président fondateur bu Académie Génération Foot Madi ñu ngi lay nuyu di la dalal ci plateau Infos Matin maa ngi lay nuyu Chérif maa ngi nuyu ñëpp di nuyu mm-hmm. téléspectateurs yi mm. et puis ci leen di jaajëfal ñëpp très bien mhm. ayo Chérif ñun nañu soobu ci waxtaan bi. am na benn photo boo xam sax xam na apulaay bu paree dinañu ko wane ñu commenté photo boobu euh, mais laata loolu maa di. Mhm. Euh, Sénégal encore une fois ci Coupe d'Afrique U20 yi ñu jël ko y' a un mois ñu jël. Chérif dégguñu la un an aussi on a pris li nga xamante ni moom mooy CAN bi. Mhm. lan nga jàpp ni moom moo waral Sénégal quand même âge d'or football waa image baa ngi nii ñii xam nga leen. <laughs> xam naa leen bu baax. <laughs> ñii ñaan la. Ameni, c'est les joueurs sénégalais mmh. ouais, qui, ont, qui, sont par euh, Génération Foot. waaw voilà bon bokk nañ ci euh, ñi jël euh, CAN u bi. Hmm. bëgg dem moo tax xam naa on va beaucoup parler de la formation parce hmm. que. am na ci juróom-ñaari génération foot la nekk. Hmm. am na ñoo xam ne ñu ci yeneen centre de formation. mi ngi mel ni kon ñu ngi dund naan âge d'or du football sénégalais. waaw c'est âge bon comme li ma ko yàgg waxee rek ce qui est important aujourd'hui c'est l'ensemble de notre football et formation bi euh, bi ñuy def c'est auparavant et aujourd'hui si Sénégal nekkee ci niveau bi tey euh, liggéey la et là ça doit nous permettre de travailler davantage et su may wax avantage mooy aujourd'hui c'est la formation e qui parle de formation parle de l'éducation et aujourd'hui éducation mooy lépp et ce qui disait euh, le euh, le président Nelson Mandela nee na l'éducation c'est l'arme la plus puissante que nous devons utiliser pour changer le monde mmh. et aujourd'hui boo gisee tey football est devenu une économie donc moo tax tey c'est boo xoolee tey sama programme bi ma koy euh, teg euh, j'avais parlé donc euh, de, de la politique de développement et si politique de développement bi tey fédération si boppam mu ngi wax dafa war a créer fédéra euh, académie fédérale il y a la formation et la détection mm-hmm. et aujourd'hui bu ñu buggee suñu football gën jëm kanam état bi aussi si suñu programme ñu waxoon infrastructure c'est infrastructure yi tey mooy Sénégal mi ngi koy def sur les quatorze régions te booy bu ñu ñëwee auparavant xool génération foot on parle des écoles de football écoles de football yi aujourd'hui ils sont plus de mille deux cent mille deux cent écoles de football soo si jëlee à peu près cent gamins ça fait cent vingt mille. Mhm. cent vingt mille ñu ne ñu ne dañuy jël si éducateurs c' est à peu près vingt cinq mille éducateurs yoo xam ne war a nekk si au niveau de ces enfants donc réussite bi tey c' est l' ensemble du football sénégalais et moo tax tey sur les vingt huit clubs professionnels club bu nekk dafa war a am centre de formation donc tey formation bi moo gagné. donc man maintenant nag ñun tey li ñu war a def mooy travail davantage pour que pérenniser ko pour pérenniser ko nag il faut que ñu ñu liggéey en profondeur. Mm-hmm. Euh, voilà euh, Mady euh, yaa ngi wax formation bi moom moo jur résultat yi mais yow en tant que président bu yor académie boo xam ne day former naka nga maanaam dem ba am lu mel nii surtout ban liggéey ngay def au quotidien parce que ñun résultat yi rek la ñu gis. mais ci suuf y a un travail qui se fait matin euh, midi soir ba tey jii ñu yeew mën a gis ay gune yoo xamee ni di nga jóge fin fond Sénégal ku ci mel ni Lamine Camara bi nekk meilleur joueur compétition bi jóge ba jululu ñëw génération foot. et loolu c'est qu'il y une organisation boo xam ne ça été mise en place ba ñu mën a jur. mooy détection bi nga wax. waaw mooy la mooy la formation bon xam na léegi euh, football c'est comme une école. et l'objectif c'est de former des hommes booy dem école tu pars à l'école à partir de cinq ans donc euh, c'est la maternelle maternelle après c'est l'élémentaire mm-hmm. après c'est collège après collège c'est post-bac mm-hmm. football léegi donc il faut commencer à l'âge de cinq ans cinq ans mooy initiation après initiation il faut aller à la préformation après préformation il y a la formation formation après professionnelle donc bu ñu leen di récupérer une fois que euh, na dugg ci formation bi dafa am liggéey boo war a def quand en formation il y a la nutrition. c'est ça mhm. des des des des joueurs. dëkkal ak dundal. waaw dëkkal ak dundal dundal mais il faut aussi avoir un plateau médical. Ah, le plateau médical est très important parce que aujourd'hui li ma gis man tey sama wàllu bopp c'est que je donne euh, benn anecdote quand je suis à. Euh, au Bayern xool Sadio dafa gaañu mais aujourd'hui ñun suñu buggee aussi am des joueurs de haut niveau il faut que suñu plateau médical baax le biotex mooy tax léegi aujourd'hui soo gaañoo ñu mun la renforcer sa tànk parce que quand quand on va demander des eh, une exigence aux joueurs ne joueur bi da nga war a top level mm. l'intensité buy tax joueur bi nekk en performance loolu liggéey la Quand on prend à titre d'exemple Génération Foot, comment on l'a conçu Nous sommes partis avec une table et deux ballons. mais on avait aussi une feuille de route. Mhm. ne ñun suñu direction léegi li ñu mën a def lii la ñu war a def jour dafa am lu mu war a def. Mhm. ak lu mu warul def. c'est le mental. il y a le mhm. mental il y a toute une préparation il y a le poste de formation. le travail individualisé. ok euh, mais mais euh, Madi xam nga yaa ngi wax sànq ci euh, dëkkal dundal par exemple. yow académie bi nga yor. Mhm. déjà euh, dangay xale yow yaa leen di euh, jox lekk chaque jour loolu rek. Mhm. en terme de coût. Mhm. par exemple benn repas pour waa génération foot. ça te coûte combien pour. pour ñu xam exactement lan ngeen di dund en tant euh, formateur ah, administrateur parce que nit ñi dañuy gis mais c'est pas quelque chose de d'évident de facile. waaw mm. mais xam na tey euh, Cheikh Tidiane bu ñu naree wax chiffre moom tey <laughs> euh, j'ai toujours eu la tête froide ah mais su ma naree wax chiffre tey dama ragal dama na ragal sax est-ce que sama bopp du nar lu metti <laughs> bon le coût est excessif avec le coût de la vie aujourd'hui mm-hmm. donc euh, li ñu jàngat aujourd'hui en tout cas xam nañu ça nous coûte énormément cher mm-hmm. pour dundal xale yi à l'année si on le calcule. Mm-hmm. je pas les chiffres exacts. bu ngeen jaayee benn jour rek ah fay ku ko nekk nag. <laughs> non Chérif Sadio Mané bu jógee bu jógee fële Liverpool dem Bayern. mais ah. je vais je vais je vais ah. je euh, t'assurer benn li yëf. Hmm. c'est vrai que on lu ñu ti def ci transfert ça repart aux investissements donc euh, amul leneen euh, tey mënoon nañu jël xaalis bi tabax si ay immeuble mais non on a choisi de former à ces jeunes la c'est le coût est énorme waaw sànq yaa ngi doon wax sax ci li euh, euh, répondre ci question Cheikh Tidiane bi yaa ngi naan amuloo chifri yi euh, mais à peu près ñaata la <laughs> pour être modeste mm. mais dépassé na déjà les euh, milliards pour pour la formation annuelle des, des joueurs parce que dans la euh, la formation des joueurs il y quand même des encadreurs qu'on paye très cher mm. donc il y a un personnel Aujourd'hui, i y quand même, euh, avec euh, les professeurs, nous avons quand même créé 350 emplois. Aujourd'hui, il y a 350 personnes qui travaillent jour et nuit donc à, à, à GF. Donc euh, nous, avons à peu près jeunes. Donc Bollinger les 130 jeunes, la préformation, la formation, le groupe professionnel, les jeux sont payés. Donc Mouna euh, ben chiffre, ça nous coûte à peu près 60 à 70 millions par mois en ah, matière de. Ah, dans 130 jeunes, par exemple, c'est 130 euh, repas. <laughs> c'est 130 repas. par jour, c'est. Agne, ndeki, ah, reine. Le coût est énorme. <laughs> Et on a, c est, c est, c est, on a eu la chance d'avoir un, un, partenaire. Et comme l'Ingaïwak aujourd'hui, en disant FCMS, que Khaïs Bigno, on renonce à toutes les indemnités de formation. Mmh. Pourquoi On le renonce pour donner la faculté à l'enfant de partir. Nous, on ne, on ne bloque pas les gamins ici. aujourd'hui vous avez vu Metz a pris trois joueurs su fekkoon ne y avait une indemnité boo xam ne tey dañ koy réclamer Metz sachez euh, euh, ngeen xam ne aussi l'indemnité est calculée à trois cent dix mille euros par joueur mmh. ça c'est l'indemnité de formation il y a l'indemnité de transfert qui varie entre zéro et x millions donc euh, je donne à titre d'exemple quand Barcelone nous avait contacté pour euh, Pape Matar Sarr mmh. il y avait une proposition de cinq milliards mais j'ai pas regardé les cinq milliards dama ne non processus jour bi su ma ko yóbboo Barcelone je prends cinq milliards est-ce que Pape Massar Sarr intérêt booy bi nga ci xool intérêt booy bi xool donc il est allé au FCMS il faut avoir step une feuille de route de ces jeunes là ñuy jël étape par étape et tout à l'heure j'ai entendu le doyen Abdou euh, Abdoulaye Diaw mhm. ñu laaj ko comment faire pour pérenniser ces jeunes là après mm -hmm. le sacre des U20 c'est vrai il un aménagement aussi boo xam ne on le met en place avec la famille il dafa am ay agent <coughs> ak agent mhm. donc des fois joueur bi bu jouer euh, benn match ñu ne la non da nga war a dem Barcelone mais non mhm. il faut prendre le temps qu'il faut Sadio Mané bi ngeen wax nii mhm. quand après les JO il voulait pas aller à Salzbourg dafa ne non président ma ne ko non tu vas aller à Salzbourg parce que soo demee Salzbourg quand tu vas faire te preuves il faut. Mhm. et tu donc à partir de là nag c' est là qu'on a vu la réussite de Sadio mais yëpp il faut faire un processus boo xam ne. c' est tout un ensemble. Mhm. et c' est aujourd'hui comme Cheikh Tidiane je vais aussi être à l'aise avec toi. Mhm. au niveau donc de des des entraîneurs au Sénégal il faudra aussi ñu fay leen li ko jar. un entraîneur euh, national. il est sous-payé. ah oui il est sous-payé. parce que bu ñu bu jox aujourd'hui un million. ils croient que un million mi ñu leen jox dafa bari no il doit avoir un bon salaire. Hmm. il doit avoir une voiture pour pouvoir aussi régler ses problèmes boo yeewoo le matin war a dem entraîner tu as un problème de dix mille oh, pour jënd ordonnance tu ne peux pas entraîner. oui voilà alors euh, monsieur Touré euh, ba léegi euh, demande yi quand même je pense que pour xale yi. ñu ngi ñu ngi yokk ñu ngi ñu bëri ñu ngi rêver d'adhérer dans des clubs comme Génération Foot. Hmm. Jambar Dakar Sacré-Cœur entre autres. Hmm. tey est-ce que mën nga ñu fàttali rek les conditions pour xale boo xamante ne dafa bëgg adhérer Génération Foot. les conditions mooy déjà c'est euh, il faut avoir un bon niveau en ah, football mais surtout aussi l'école Mm -hmm. Comme j'ai dit auparavant, nous formons des hommes. sport études ngeen di def. Ouais, sport études. Nous avons un lycée. L'année dernière, on a fait quand même 100% de réussite au bac. Mm -hmm. 80% de réussite euh, au DFM. Donc xale bi buy ñëw mm-hmm. ñun on remplace les parents. Donc on doit les euh, formater qu'ils deviennent des acteurs de développement. Léegi ñëpp xam nañu tey football c'est une économie économie boobu nag pour ñu pérenniser ko nag il faut que état bi dugal seen loxo et des centres de formation yi et des yi pour qu'on puisse aussi créer beaucoup d'emplois mm-hmm. mais par exemple et des de formation yi comme ni nga ko waxee euh, déjà Chérif mi ngi la koy wax sànq ni que da ngeen di recevoir xaalis bu bari ci transfert yi tey jii suñu waxoon ni nguur gi par exemple mu dimbali centre bu mel ni Génération Foot dañuy wax ne ah non non non am nañ xaalis foofu lañ ko jàpp ce que c'est c'est ce qui est c'est le bon discours est-ce que yéen soxla ngeen euh, ndimbal wala ban genre ndimbal de la part de l'État mooy soxla nañ ndimbal soxla ndimbal mooy que aujourd'hui au niveau des professeurs ah, on les paye aussi pour que. ñu ñoo leen di fay moo ñoo leen di fay. soxla ministre de l'éducation mënoon na ko jël maanaam. mënoon na ko jël ah. donc ndimbal euh, aussi euh, euh, euh, au niveau donc des. des ay impôts da ngeen di fay impôt askan ñun. ah bien sûr en mais on paye les pour cent. <laughs> waaw on paye les 5 xool naka leen def ci wàllu impôt fiscal yi te ñu dimbale leen. les 5 pour cent c'est qu'on paye c'est pour le personnel. Hmm. donc aujourd'hui euh, état bi war nañu xool loolu su fekkee mën nañu ko épargner aussi. ce ah, serait bien parce que il faut pas que ñuy xool ni que ni MES am nañu MES. mais on renonce à toutes les indemnités de formation. ñu waxoon ko pour génération foot kese dañ koy wax pour justement le développement du football. Aujourd'hui, il y a les centres de formation, il y a aussi les clubs. Mhm. Et dans mon programme et dans mes calculs, pour commencer avec le football sénégalais, on a besoin de 5 milliards. 3 milliards pour le football amateur et 2 milliards pour le football professionnel. Lolo, il faut que les députés nous voter à l'Assemblée pour le mettre en place. Ça, c'est le candidat à la FSF qui parle, hein, <laughs> Comment C'est l'ancien candidat à la présidence de la FSF qui parle. Oui, mais non, <laughs> aujourd'hui, ce n'est pas, euh, ouais. pas l'ancien candidat qui parle. Vous m'avez posé une question. Pourquoi l'Allemagne de ce football Donc, Donc, que dit, a dit que la proposition ici, c'est pertinent, nous devons le un programme. Non, mais, mais bon, proposition, je l'ai toujours dit, même si dans, les assemblées, on on a mhm. besoin de cinq milliards minimum mhm. pour que clé bi mun a démarrer maintenant aussi bu ñu leen euh, aussi bu ñu créé bu ñu leen joxee cinquante euh, euh, cinq milliards yi il faut que aussi mu am contrôle. ñu xam xaalis fan lay dugg. waaye mhm. parce que njiitu réew mi bi mu recevoir équipe nationale locale bi bi mu ñibbisee dafa laajoon acteurs yi ñu mm-hmm. dajale xool nan la ñu mën a jàppale foot local bi est-ce que mm-hmm. jàpp nga ni proposition boobu. ça va dans ce waaw mais bon. ku nekk yaa xam li ngay li <laughs> ngay defaree sa yëf mais en tout cas man aujourd'hui pour ma part su fe euh, su ma euh, président Macky Sall laajoon aujourd'hui le dossier est, est prêt mm-hmm. parce que loolu préparé naa ko ba may nekk candidat et aujourd'hui xam naa en toute modestie mm-hmm. lan la ñu war a def pour suñu football dem kanam. alors monsieur Touré euh, sans pour autant remettre en cause liggéey bi nga xamante ne jot ngeen ko def ba euh, ba pare il y mm-hmm. encore su côté euh, palmarès en club boo xamante ni ça fait encore tache d'huile euh, dans le palmarès global du football sénégalais euh, que reste-t-il justement à battre comme travail pour euh, mën a yegg ci trophées continentaux avec les avec les clubs. waaye ouais, trophée continental yi pour suñ su bëggee yegg avec les clubs mais aujourd'hui quand vous voyez au, au niveau des génération foot. Mm -hmm. on nous a pris sept joueurs. Mhm. sept joueurs yoo xam ne là on a beaucoup de matchs retard donc loolu bu ñu koy jël aujourd'hui moo tax l'objectif c'est de ne pas que de Génération Foot. D'accord. L'objectif mooy que tous les clubs du Sénégal am centre de formation. Mmh. et loolu daf ñuy permettre ëllëg bu ñuy def équipe nationale ñu jël benn joueur Gorée. Mmh. ñu jël benn joueur Jeanne d'Arc. Mmh. ñu jël benn joueur euh, Dakar Sacré-Cœur. et c'est un ensemble qu'il faut travailler. ñun ñun créé ñu Génération Foot aujourd'hui que je l'ai toujours dit je suis un acteur de développement. lan la ñu mën def pour aider les autres. ah ñu mën a am aujourd'hui centre de formation pour que ñu mën a liggéey ensemble mm-hmm. aujourd'hui c'est c'est c'est très compliqué maintenant ëllëg suñu fekkee ni on peut garder les joueurs mm-hmm. aujourd'hui même changé nañu sax processus mooy que les joueurs de génération foot partiront à partir de dix-neuf vingt ans Lamine Camara ba muy am dix-huit ans euh, que Metz demande que j'ai j'ai refusé et je vous raconte euh, je vais vous dire une anecdote bu mu signé contrat Metz m'a demandé il faut que ñu ñu dem. kon warul woon jouer compétition bi bi ak. Euh, et là j'ai dit que on a quand même une coupe d'Afrique bàyyi nañu bàyyi xale yi jouer coupe d'Afrique ak U20 ñu doog a dem. Mhm. donc là on a on a participé pour que xale yi andi seen seen euh, seen apport dans l'équipe nationale. mais maintenant ñun génération foot euh, on s'est dit même si on gagne pas de titre si le Sénégal gagne. je préfère que le Sénégal gagne que génération gagne des trophées. loolu moom mooy patriotisme. très bien euh, parce que ñi. amoon naa beneen peut-être benn laaj euh, Madi mooy dañuy gis ne euh, c'est pas la première fois ñuy dem finale donc dem nañu finale U20 demati demati. Hmm. te génération yooyu après duñ leen gis lan moo waral loolu. alors que am nañu place su ma juumalee ci suñu équipe nationale bu mag bi. Hmm. fan la ñuy jaar encadrement bi suivi mooy des lan moo tax. bon génération yi c'est euh, dafa am euh, euh, comme li may yàgg wax joueur yi le conseil il deux conseils il le joueur qui écoute après day réussir le joueur qui n'écoute pas avec sa famille il va lâcher par exemple bu ñu jouee U20 ñu nekk par exemple là les gars de U20 dañuy yàkkamti dem or que da nga war a réfléchir mm-hmm. xool ban direction ñoo war a jël et direction bi aussi joueurs yi dafa am joueurs yoo xam ne dañuy dañuy gaaw a beeyu dañuy gaaw a doyal. ils ont gagné aujourd'hui u bu ñu ñëwee fii bon ils changent d'attitude. attitude bi mooy lan. commencé nañu soo leen ooyee dootu ñu jël bu ñu ñëwee ils ont la grosse tête. Ah parce que grosse tête. surtout bu prime yi bëree. waaw xaalis bëree et puis ñu ñëw bon je ne peux pas aujourd'hui par exemple li ngeen di joxe xaalis bi. Euh, je ne dis pas que c'est pas bien. d'accord d'accord ma si à 100 pour cent. Mmh, moo tax dans mon programme j'avais parlé de caisse de solidarité la caisse de solidarité day régler problème yu bëri. prime yi bu ñëwee loolu nag prime yooyu nag membre délégation bi ay fédération yooyu. ñooñu li ñu jox ci prime bu bëri ñooñu la seen i prime war a wàññeeku ñu def ko caisse solidarité gone yi amul salaire ñu bàyyi leen. oui mais mais xam na euh, Sadio a commencé. avec un salaire de 800 800 la commencé et pour pourtant Sadio bi mu ñëw Metz phénomène la soo leen teelee wanee xaalis li ñu war a def pour yegg à niveau bu ñu bëgg duñ fa yegg ba ñu foo ne yegg nañu et là c'est c'est c'est dangereux donc ce qu'il faut fair aujourd'hui au niveau de ces jeunes c'est les parents mooy que bu ñu ñëwee ñu gagné par exemple U20 dañu war a jël benn euh, temps d'adaptation xool club bi ñu war a dem bañ a yàkkamti dem par exemple dans les grands clubs je donne à titre d'exemple Wagué. day mmh. Wagué à Barcelone Moussa Wagué après moment donné quand les gens m'ont posé mu nekk c'était pas la meilleure solution. Mmh, Moussa donc Wagué tey bu demoon par exemple Metz wala mu dem dans un club comme Lorient. terminer la formation parce que les joueurs qui sont actuellement à l'équipe nationale n'ont pas encore terminé leur formation. Et la formation aujourd'hui, même le cas de Lamine Camara, mmh. quand les gens disent que oui, il est bon, mais je lui dis que destin, le chemin est très long. Très long oui. a réussi Parce que mm-hmm. Sadio a écouté. Mm-hmm. Donc il y a l'écoute. Ouais. La première des choses, ouais. c'est l'écoute. L'écoute. Mm-hmm. ci ci parce que ñëpp a ngi doon xaar nag booy yi quand parce que dañ koy reproché fois du def confiance yenn booy xanaa li fi booy wan achan beeg CAN U20 bi war naa tax l'exemple par exemple Lamine Camara ak ñeneen. waaw mais xam na euh, Chérif il faut ñu xam fiche euh, fiche poste Aliou Cissé lan la si contrant bu muy signé lan lañ ko dugalal si fiche de poste. gagné trophée da lañ ko sax. oui mais bon gagné trophée bi. coupe du monde bi man man je sais qu'auparavant euh, Claude Leroy bu muy jël fédération dafa amoon dañ ko ne. booy jël jeu dafa am nombre boo war a jël fii am nombre boo war a jël en France. Mhm. maintenant su fekkee nag sa par exemple Aliou Cissé dugal ñu ko ci fiche de poste bi ça pose problème mais aujourd'hui j'ai rien contre les binationaux j'ai rien contre mais aujourd'hui xoolal joueurs yi il faut que mu am suivi. Mhm. ces joueurs là dañ leen war a suivre. Mhm. yow aujourd'hui un journaliste. que tu es bu la for bu fekkee ne tey euh, euh, TFM formé na la yóbbu la si yeneen yeneen yeneen organe dañ lay suivre xool ndax liggéey bi ngay def baax na et que aujourd'hui alors avant ñu jëm jëli benn journaliste à l'étranger mais on va dire que ñun on a quand même un journaliste qui est qui est, qui est pertinent mm. il faut ñu jël ko andi ko fii voilà mm. c'est tout mm. aujourd'hui bu ñu jëlee yeneen joueurs yi tey yi fi nekk par exemple euh, entre les binationaux et les joueurs d'actuel nañu xool la promotion la promotion aujourd'hui euh, l'équipe est vieillissante Lamine Camara waxuma par exemple dafa war a jouer tout de suite mais si tu es meilleur joueur y a un meilleur gardien y a la meilleure défense meilleure ah, attaque dañu war a xool benn ossature mhm. si yenn joueurs yi ñu andi leen en équipe nationale mhm. parce que y a vingt-trois joueurs préparé à l'avenir mmh. qui oublie euh, euh, ma ne qui se prépare pas oublie à être oublié donc loolu ñëpp il faut avoir une ligne conductrice boo xam ne moom la ñu teg en place mais loolu ça dépend de la fédération sénégalaise de football mm-hmm. lan la ñu signal ak Aliou Cissé mm-hmm. sa dëggante ak fédération bi wax nga si jaww mi naan ancien candidat nga amoon nga ay proposition ñu ngi la ciy laaj wala yaa ngi joxe xalaat en toute sincérité j'ai musuñu ma laaj d kenn mësuma laaj dara mais man aujourd'hui même bu ñu ma laajul sama wareef la ma apporter sama pierre à l'édifice mooy lan liggéeyal sama dëkk loolu ma ñor le reste du ma ko occupé très bien voilà euh, euh, euh, championnat bi première partie bi jeex na yow bi mu commencé waatee ba léegi sax géewuloo ndax internationaux yi nga amoon fële Égypte mais nan nga envisager deuxième partie génération foot deuxième partie championnat bi parce que là tu perds pratiquement te quatre <laughs> meilleurs joueurs ñu dem te championnat bi première partie bi c'était pas évident c'était très difficile. Mm-hmm. ñuy demaat ci deuxième partie boo xamee ni est-ce que effectif bi ngeen am. bare na waxuma sax pour euh, gagner championnat bi mais pour euh, terminer ci place bu honorable non mais sur ce plan là. Euh, Euh, je ne suis pas inquiet parce que tout à l'heure on a 130 joueurs dafay permettre ñeneen ñi aussi ñu jox leen seen seen chance c'est l'occasion que yeneen joueurs yi wane seen bopp donc sur ce plan-là on n'a pas de souci à se faire donc mmh. peut-être bon ils n'ont pas assez d'expérience ah. mais ah, c'est la formation <laughs> voilà. Euh, Lamine Camara c'était euh, hmm. c'était lui qui faisait jouer ah. l'équipe le métronome. dem <laughs> na am ngeen ci aussi. ñu ngi ñu bokk ci CAN U17. oui on a à peu près neuf sélectionnés. <laughs> gars <laughs> <laughs> est. Hmm. Euh, pour le Sénégal. Hmm. Ah, bu ñuy construire génération foot. l' objectif c' est de sortir le maximum le Sénégal et aujourd'hui de voir partout en Afrique c' est un immense plaisir. Hmm. vraiment pour notre ñu xam ne aussi que le football est devenu une économie. Ah, et donc là bi. investir. les gens vont dire y a pas que le football mais li am Brésil mun na am Sénégal donc il faudra qu'on ñu am benn vision boo xam ne c'est pour l'avancement de notre football et je pense que incha allah l'objectif li ñuy xaar on gagnera la coupe du monde inchallah inchallah euh, monsieur Touré euh, euh, sans pour autant vouloir indi euh, euh ambiance bu bu bu bu yàq li ñuy wax sànq ba léegi y a eu le vote cette euh, FIFA de best qui avait fait polémique ces derniers temps. Mhm. ak Aliou bi nga xamante ne voilà on voit le classement Kylian Mbappé le tànnoon. Achraf mhm. Hakimi en deuxième position et puis Sadio Mané en troisième. Mhm. ban jàngat nga ci am yow. bon jàngat bi ma si am mooy que euh, polémique bi bari na. mais il faut que Aliou reconnaître qu'il a fait une grosse erreur. c'est une erreur mais nit nit day juum nag. day juum parce que. mënul wax ni auparavant que Sadio doomam la. Mhm. te du voter pour Sadio. c' est comme si y' a un ministre ah. ah ñu laaj ko benn ministre de la République ñu ne ko euh, euh, c' est qui le meilleur président nga dem voter Gagamé. boo ñëwee <laughs> Macky Sall da lay da lay génne. <laughs> c'est ah, donc il faut ah, pas aller loin ah. on peut passer à autre chose. Mhm. man li ma mën a wax pour Aliou Cissé il a fait une erreur. Mhm. parce que euh, Sadio c'est notre. leader. ça c'est la première de choses. mais il fait partie des meilleurs joueurs au monde. et que li ma mënul concevoir mooy que yeneen dëkk. par exemple quand Aliou Cissé a voté man bon je vais pas dire les noms les gens qui m'ont appelé mais est-ce que vous avez vu ce que Aliou Cissé a a a fait mooy dafa juum dafa juum et comme que dafa juum. nañ ko baal. Mm-hmm. alors un autre aspect euh, euh, Fatou nga permettre ma ko. waaw dernière qui me tient à cœur quand même c'est le football féminin. gis nañ ne ne waaw parce qu'on les oublie quand même. et ñu ngi gis na ne temps yi macha allah ñu ngi ñu ngi def ay ay efforts. Euh, nan ay réew yu bëri ay ak ay club sax yoo xamante ne. ñu ngi ñu ngi miser. voilà sur sur le football féminin de grands clubs à l'origine mascul masculin bi tey génération foot par exemple lan mooy politique lan mooy état des lieux ci wàll boobu plus global globalement au Sénégal naka nga gisee euh, justement formation boobu. non mais bon euh, dans mon programme j'avais parlé du football féminin. d'accord et que là ñu ngi ñu ngi créer. Mhm. Euh, on est de créer donc euh, section euh, féminin bi ñu ngi ko nar a créer bientôt. d'accord mhm. donc en principe Fatma Samora. war na ñëw visiter Génération Foot pour parler du football féminin avec mhm. Génération Foot. on est ouvert et on a la chance d'avoir Bassoir Diaby qui est directeur technique et qui connaît bien le football féminin. Merci. En tout cas, sans les femmes, on n'est rien du tout. <laughs> Hein? on est sur On va sortir des, des, des joueuses comme Fatma, <laughs> ñu ko doon wax sànq quand même ñi nga xamante ni ci wàllu formation ay Malick Sissour yi depuis Aldo Gentina ak yow. Mm. gis nañ Sayar Seck aussi ñoo xamante ni je pense que état bi au-delà de la accompagnement même récompense ci wàllu ay distinction ngir quand même encourager leen ce ce que vous faites parce que dañuy fàtte quand même ñoom Salif Diaw ak génération 2002 bi ñoom mm. fii lañ nekkoon ci wetu Aldo Argentina mm. ñu leen fay tàggat ba yéen ngeen jaar seen tànk mm. man li ma bëgg a sax sama bopp mm-hmm. mais dama bëgg vraiment ñu defal njukkal Saer Seck mm-hmm. parce que c'est monument du football te il faut que ñu dellu ko njukkal parce que sama mag la et puis <laughs> bu muy créer jàmbaar il a mis beaucoup de moyens te xaarul jàmbaar pour dund dama bëgg fédération delloo ko njukkal. maintenant man oui a vu ce qui s'est passé. voilà bi mu démissionné ci ligue ba ak élection ba. waaw dafa dafa retiré wu un non retiré wul bon retiré wu peut-être dans les instances. Mmh. mais il est toujours la coupe d'Afrique day dem coupe du monde day dem mais bon. quand le Sénégal perd il est il est malade. Mm. du dëgg. mais lépp loo mun defal sa réew rek même si y a pas de reconnaissance reconnaissance su yàlla moo gën si lépp si àdduna du dëgg c'est le peuple ki est là aujourd'hui mm. il faudra ko ñu manko ñu ñëpp pour avoir la même vision et que comme on dit bu Sénégal nekkee benn rek jàmm dina fi am. très bien merci beaucoup. Euh, merci jolof di détecté xale yi tam mën nañoo football on a on a on a que de foot euh, sur ce plateau et même à la régie parce que mm. tey moom. Mm-hmm. Mm-hmm. personne ne m'a dit il est oh, kenn ba dañ ma bàyyi rek Marcel ak Chérif ñuy def lu leen neex. alors qu'il est l'heure depuis ak euh, FIFA seen congrès bi ña ngi koy waajal ña nga Kigali jamono ji mm. Infantino amul kii amul maanaam challenger Euh, <laughs> c'est le ah, seul candidat et il sera réélu très certainement à la tête de la FIFA. Très bien, c'est ça. Merci beaucoup. Merci Fatma Madi. Samou, Fatma Samoura comme euh, vice-présidente. D'accord. <laughs> Cheikh Tidiane. Il, il n'arrête pas quand il parle de de de sport, particulièrement de football. Merci beaucoup euh, Madi Touré, président fondateur de l'Académie Génération Foot. ñu koy jaajëfal mu nekkoon suñu invité léegi léegi ñaari yéenekaay yi Groupe Futurs Médias muy l'Observateur ak